mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal di leen ko baalu di leen jéggalu bu wér di leen sant it di leen gërëm di leen ndokkeel ci bés bu barkeel bii ñu jóge di fàttali sunu bopp di leen fàttali li ñu bokk li ñu fi indi wala ki ñu fi indi wala lu ñu fi indi ki ñu fi indi mooy sunu boroom subhaanahu wa moom mi nga xam ne kenn du moom te moom du kenn nuroowul ak kenn kenn du nuroog moom moo tàmbali ba dara du dara moo amal lépp lu fi am moo yoreel boppam li ba li fi bu fi jógee it moo fi des moom borom bi subhaanahu wa taala boppam jullit bi nag fa tabaarakalla war na gëm ni xam ne yàlla kenn la amul dendandoo amul kun koy xoole amul kun koy nuróole càppaacole la kenn la ku wéet la ci mbiru boppam moom lay ñépp di jublu amul même moom amul kenn ku muy jublu ci ay mbiram ku yàgg la ku fi jiitu la ku fi sax ba faw saxam amul fu mu jeexee tàmbaleem it amul ab tàmbale moom yàlla buur bi subhaanahu mujjantalem it du jeex du jeexu jeexu nit ñi ku taxaw ci mbiri boppam la te du jeexal te du jeex soppeeku jamono du tax mu soppeeku bal moom yàlla mooy ki jiitu mooy kiy mujj moo feeñ waaye moom moo nëbb yàlla sunu boroom wute nak mbindeef yi ci melokaan laysa ka mislihi shay'un dara melul ni yàlla waaye yàlla melul ni dara moo féete lépp lune ne ci kaw fu ne ak ci kaw lu ne nekkam ci kaw lu ne ak fune ne jaamuk boroom jaamuk ñi sun ko jaamoo du ko yokku waaye buñ ko ñàkkee jaamu it du ko wàññi tur tus ci boppam ci ak ci nguuram ndax moom yàlla day ku jege jaamam yi la moo leen gën a jege sax seen buumu baat bi lëkkale seen xol yeeg seen baat yi buñ ko daggee mu dee moo leen ko gën a jege moom yàlla moom moo seede lépp moo xam lépp mooy gis lépp te mu ngi ànd ak yenn fépp fu ngeen mën a nekk yéen jaamu yàlla yi kenn mënta melal melokaanaw jegeem gi mu jege nit ñi ba nga ne dafa mel ni nit ñi wala dafa jege nit ñi waaye sorewu leen waaye jegewu moom borom bi subhaanahu wa taala waaye wadde moo tax dara nuroowul ak moom ci melokaanam bi dara duñ ko tëkkale ak moom moom moo jamono moom boor bi subhaanahu wa kenn mënta peeg ay mbiram kenn mënta xam fi mu nekk ni mu nekkee moom day buur bi subhaanahu wa taala kenn mënu kaa gis ci àdduna bët mënu kaa gis lu dul bëtu xolu ñi ragal yàlla ci àdduna waaye ëllëg yowmal qiyaama nag danañ ko gis ci këru aljanna ba moom loolu moom yàlla subhaanahu wa taala tegtale ne loolu ci ay aaya yu bare ci biir alquran wane ne ëllëg mënees na kaa gis waaye fii ci àdduna mukk loolu munta am buur yàlla mooy ki dundu mooy ki àttan mooy jàmbaaru jàmbaari moom moo tëlewul lenn te duñ ko nuróole nag duñ ko melal ci muy tële walla muy am lu muy mën ak lu mu mën moom buur bi gëmmantu wala nelaw du ko jàpp moom moom asamaan ak suuf moom moom lépp lépp lu nu amal ci kaw suuf seeg ci biir suuf si moo moom moo sàkk asamaan bi moo sàkk nit ñi moo sàkk seeni jëf moo sàkk seeni moo dogal sàkk seeni wërsëg ak seeni digg li ñuy dund ci àdduna boobu ñuy dee yépp moom mooy ki ko tënk ci ay ndogalam kenn mënta xam xam-xamu yàlla fu mu tàmbaleeg fu mu yem moom mooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom moom borom bi xam-xamam ak xam na lépp te dara ump ko it moom borom bi dara du nëbbu ci moom lu toll ni pepp suuf tuuti tuuti walla rëy du ci asamaan du ci kaw suuf moom nag xam na li nëbbu xam na li feeñ moom mooy kii daj kumpa ci kaw wala ci biir xolu jullit ñi ak nit ñëpp moom moo xam seeni yu nëbbu yu baax yee yu bon yépp moom buur bi xam na ko moom moo amal mbindeef yi nañu xam ne yi dara du am fii ci kaw nguur yàlla gi mu néew mu bari lu dul lépp dafay daw ci ndogalam moom yàlla ak àtteem amul lu rëy muy lu baax muy lu bon muy luy njëriñ muy luy lore lu dul lépp lu fi dox ci kaw àdduna bi wala ci biir àdduna bi ci ndogalam ak àtteem ak coobareem lay doxee lu ko soob loolooy am lu ko soobul du am fa ma shaa kaana wa ma lam yasha lam yakun moom mooy ki tàmbalee li tàmbale moo jëf li jëfu moom borom bi subhaanahu su jëfee ba noppi kenn contesté walla ngay am looy dingat ci arteem wala ci ndogalam te bu dogalee dara kenn mënu koo delloo dudul ci coobare moom yàlla jaam buy daw mooy yàlla mënul ne lu dul ci tawfiqam moom yàlla moo lay dëppaleeg daw ba ak yërmandeem nga rëcc ca waaye daw mooy yàlla kese ci nit ak pexeem mënta sotti yàlla moo lay musal kàttan ngay mën a jaamu yàlla wala nga topp ko wala nga bëgg ko mënta nekk lu dul ci nammee la moom yàlla moo lay bëgg wala mu bëggal la boppam namm ko nga bëgg ko bu nit ñi jinne ñëpp daje woon ak malaaka ak seytaane ngir bëgg a àtte wala bëgg a def lenn ci nguuram gi mënuñu ko du luy taxaw dulu tëdd du lu yëngu du dal kenn mënu ko moom buur bi subhaanahu ci ay ndigalam ak ay rek lay mbir yi di doxe mooy kiy dégg mooy kiy gis mooy kiy wax te waxam nuroowul ak waxu nit ñi nañu xam ne nag lépp lu dul yàlla neen la moom yàlla moom moo tàmbale lépp moo amal lépp ci kàttan ak mën-mënam muy luy yëngoog li dal ak lépp ci àtteem lay doxe moom buur bi subhaanahu moom nag moo won nit ñi lañu xam ne moom rek yàlla moo tax mu ne inna fi sama samawaati wal ard aaya ba ba mu jeex wane ne yàlla rek a yàlla moo nag waaw dana yéeme lool nit ki nga xamante ne bi nan lay moyee yàlla te mu xam ne yàlla mooy ki amal li am te amal ko moom moomu te boo moyee yàlla nga gis ni lépp lu fi nekk ci kaw suuf si dafay tegtale ne mooy yàlla mooy kenn mooy ki amal lépp fépp ak lépp kon nag jéem koo mooy ñàkk xel ak bañ a jëfandikoo sa xel waaye fooyoog sab xel la kon nag lépp lu yëngu lu dal lépp mu ngi dox ci ndigalu yàlla ak ndogalam moom buur bi subhaanahu wa taala xam ne nag ñun nit ñi nanu xam ne yàlla day suñ ko gisul it moom mu ngi ñuy gis te it nanu xam ne sallallahu alayhi wax na ni lépp loo melal ci sa xel na nga xam ne yàlla wuute nag loola looy melal ci sa xel rek yàlla wuute nag loola kon nag nanu xam ne lépp lu dul yàlla neen la bépp xéewal bu dul xéewaluk yàlla yàgg-yàgg dafay jeex kon nag nit sa dund lu mu yàgg-yàgg danga fi jóge dellu ca bàmmeel ya dellu sa boroom kon nag nit ñëpp Ah. ñun ñëpp yàgg-yàgg lu mu yàgg dañ fiy jóge ndax fi dañ fay ganu si rek kon nanu waajal bala ñuy dem ñu ga waajale ko nan xam ne nag yàlla rek a yàlla moo ñu fi indiwoon woon moo ñu fi jële teenu kaa jàmm balaa mu ñu fi jële ñu xam ne yàlla rek mooy sunu boroom moo ñuy munal moo ñuy amal ëllëg ñu ngi koy ñaan yal ñu dajaleeg yoonant bi mu ràmm ñu ci ràmm bu baax ba yal na nu yàlla yërëm te suturaal ñu ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam